dañuy mm. féliciter d'abord euh, tey ki nga xam te ni mooy l'enfant terrible de la Sénégambie parce ah. que Lamine bu ñu defee taxaw seetlu tuuti jamaïcain bi mu mujjee fii France def tournée bi mu defoon Europe mm-hmm. ne ne woon na wax dëgg yàlla bu ma ñibbee képp kuy amateur làmb ni nañ kontaan parce que dinaa leen indil surprise yoo xamante ni peut-être xaaruñu ko woon ci man mm-hmm. yàlla def ñu dawal tuuti ñu gis mu tëgg grand combat Reug Reug bombardier muy combat boo xam ne tey moom la ñëpp doon xaar euh, wax dëgg yàlla te amateur nañ ci kontaan ñu ne déetawaay defoon ni foofu lay yem mu ñëw nag ne bébé Diène xale bi nga xam ne nag moo commencé te ponkal moo mm-hmm. commencé te ponkal yi ñëw boole ko ki nga mm-hmm. xam te ne mooy ama neex borom tëggee mm-hmm. te ama neex ñëpp xam ni ama neex euh, yàlla def na ay na ci xale boo xam ne tam dafa bëgg a dem. waaw ñu ne champion la ñu ne kii mën naa bëri ama neex ay ci moom. Mhm. donc te jii combat boobu rek doyoon na comme grand combat waaye comme dañ ko toftal ci ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug ak Bombardier macha allah je pense que ni journée boobu dina alarmante nag journée bi nag aussi ñu ne ordinateur dana ci bëri. waaw loolu loolu ordinateur rek doy na coow làmb. ak ni mu xewee temps yi ak yu mu xewee temps yi lamb jooju na toutes les façons man ku ma fa dëgg ne ma sax mais ordinateur pourtant jam mënoon na teg ordinateur ak Doudou Sané arène lu neex ngi noonu wala Doudou Sané du ko bëgg mais parce que bii passé dañu bëree mu daan ko mu bañ non ne comme combat du combat du ordinateur daal jàppal ni moom mooy làmb yàlla def na ko ci que ce soit ci lit champ wala ci arène bi et puis ni muy ambiancé arène rek jar na quatorze milliards donc je pense que ni kooku jar na promoteur yi bàyyi ko xel mais comme jamaïcain ñëpp ne nañ ñu dëmm la donc fi li di ngee di xalaat mooma laam dina ko hmm? indi leen jamaïcain la di ko ñu ne jamaïcain gars yi nañ dëmm la kos kos nee na jamaïcain la dëmm la kos non bi lay jamaïcain la waaye nag bilay dëmb bi nar naa bégal amateur yi. waaw. waaw nar naa bégal amateur ci loolu lay dox ci lay parce que xam nga les Jamaïcains. Ah, dafa am une défi personnelle. Mm-hmm. boo xamante ne nee na ma père Ali mu ne ma bëgg naa def ci làmb loo xam ne. sama mm-hmm. morom du ko def. Mm-hmm. bëgg naa def ci lamb loo xam te ni promoteur ba ngay toll fa ma toll defloo ko. donc tey nag je pense que ni mi ngi ci lancé boobu. li ñu mën mm-hmm. def rek mooy di ko ñaanal. aussi mm-hmm. dafa soxla jàppale gars yi jàppale ko parce que jamaïcain mii ku ko jàppale. axlu làmb danañ kontaan ci moom parce que xam na làmb. ok ne ko comme la. Mm-hmm. nekk promoteur. ok ba tey jii nag. wax yàlla làmb la mu ci xam bari na. ok coach coach loolu am na solo mais combat bi nga xamante ne jamaïcain tëgg na ko. grand combat bi beneen yoon dinañ wax dinañ ci waxtaan mais nañ waxtaan tey ci li ni këtt ni jonn mooy mooy Bébé Diène ak ki nga xamante ne mooy Amaneex Amaneex bi bëri woon ak Lac Rose en 2012. Amaneex bi bëri woon ak ak ak ak ak Boy Niang. Hmm. woon ak Boy Bawal. nan la mën a toog six ans bëriwul parce que 2018 la ko joxoon bëri. waaw condition la mën a nekk ba mel ni Amaneex boobu noonu. waaw condition yi mu mën a nekk je pense que ni ama neex moom ci boppam comme moo toog temps boobu yëpp parce que ama neex boo xoolee ci ginnaaw boobu ba léegi mi ngi bëgg di euh, di wut adversaire pour bëre gars yi nanguwuñ ko jël mm-hmm. ma jàpp ni mi ngi doon entraîner boobu ba léegi mm-hmm. ce qui veut dire que ni tey bu fekkente ni tey am a neex bëgg naa ça veut dire que ni tey euh, c'est que mu ngi États-Unis na commencé rey boppam tout liggéey bu tàng jër boo xamante ni tey dana ko mën a permettre mu am kattan d'abord ba pare. Hmm. bu ko defee après nag teel a ñëw Sénégal di contact teel a ñëw Sénégal. Hmm. waaw parce que di contact parce que mbëri bi muy bëreel. Hmm. gisuma ko ko dàq bëri ci làmb moom am na neex. am non moom kii ba bébé muy bëreel muy bébé gisuma ku ko dàq bëri ci làmb ji te mi comme mi ngi commencé nag di am confiance ci boppam te nag am tey ji bët fu mu teg làmbam parce que Bébé Diène da daan foowee làmb mais dem na ba léegi nga xamante ni kii yeewu na ci làmb léegi am na lu mu bëgg ci làmb te bëgg naa ci mhm. donc nga ne ama neex coach da nga ne ama neex il faut mu teel a entraîner ut doole teel ñibbi Sénégal waaw yow soo ko yoroon en tant que mm-hmm. coach. ci quatre mois combat combat quatre mois la. waaw septembre octobre oh, novembre décembre quatre mois la war a préparer combat bi. soo ko yoroon yow première phase d' entraînement ci lan lay concentré wu. première phase d' entraînement bi d' abord xam nga tey mooy defar yaramam li ñuy wax naan yaram dañ koy régénérer régénérer. ça veut dire mm-hmm. que régénérer sa yaram d' abord définir muscle yi nga xam ne tey moo nekk ci yaram bi. Mm. c'est important waaye définir muscle yi nga xam ne tey ñoo nekk ci yaram bi liggéey la définition musculaire xam nga bu mm. fekkente ni yaa ngi def la définition musculaire ba mm. pare boole kook séance de boxe mm. ça veut dire que ni tey gut un vrai technicien un boxeur boo xamante ni tey dina la yor di la liggéey ak yow selon tes euh, tes attaques tes défenses tes attaques tes défenses boole kook sparring partenaire bu bëri parce que xam nga boxe ja gars yi dañu yaakaar ni boxe tey da ñëw jël ay power rek dóoral gauche daan dóoral loolu mooy boxe loolu du jàng xeex coach déggatuma la de déggatuma la de xam naa appelé la déggatuma coach ah ma ba xam yéen yéen a koy dégg allo waaw ñëw na waaw. ñëw na dégg nga. waaw waaw. ça veut dire nag sparring aussi bu day ci côté boobu mais xam nga tey bëree dafa nekk loo xam ne yemul ak dara. ça veut dire que ne tey sparring sparring ci maanaam ci lan ci box wala ci contact bi wala. non dafay daf sparring partenaire benn ci box. ak aussi bi nga xamante ni tey jii parce que li muy soxla dëggantaan ci adversité ci contact dëggantaan bëri kooku Sénégal la ko mën a amee. Hmm. pour mën a contact lu doy pour yaram bi mën a fendi ci contact bi parce que xale bi muy bëreel yàlla def na dafa sob te waane ci bëri. Hmm. Hmm. donc tey bu fekkente ni sa yaram màndiwul bëri. li dal diggante Franc ak Forza looloo koy. Mm. parce que diggante Franck Forza boo xoolee ñoom ñaar Forza mën naa bëri loolu de. Mm-hmm. peut-être que ni ñàkk contact bu doy ci yaram bi. moo tax mm-hmm. nag par contre am na loo xam ne même bu ko xel bi neewee da koy def du ko mën a def parce que dafay yéex sur sur tous les plans. Mm-hmm. donc loolu foofu lay ñàkk contact bu doy foofu lay feeñee ak bër xam ne day contact régulièrement. te xam ak xam ne kii dafay contact régulièrement parce que li mu indi keroog contre Baye Mandione ce qui veut dire que ni qualité mi ngi yoon bi parce que li mu indi mooy une rapidité d'exécution extraordinaire boo xam ni en mouvement mm. liggéey donc ce qui fait na ne amul kenn ku mu mënul tey wala ku mu mënul daan ci làmb ji mm. parce que loolu il faut nga nekk un vrai technicien pour def ko mm. ba nga xam te ni amulooy pexe sax xalaat ndax ma bëree wala ma gàntal ni quoi que ce que du la bàyyi nga def ko sa veut mhm. dire que ni kooku li mu indi woon ci combat boobu beneen bu ñëwee tey dina indi lu ko ëpp. Mhm. ça veut dire que ni yow mi nga xamante ni tey da ñëw nag di bëri moom ça veut dire que ni tey il faut que yow en personne que physiquement que tu sois plus que prêt. Mhm. mooy démb li am ci diggante Youssou Ndour ak Mor Kanka. gis ni Mor Kanka malgré que ñëpp xam nañ ni mbër la dafa sop gaaw na. mais Youssou Ndour pare boo ko gisee da ngay xam ne kii dafa pare ci bëre contact ba nga xamante ni tey lu kii def mu dindi ko. Mm-hmm. donc tey a neex tey combat bi mu am du yomb ci moom mais comme nag yàlla def na euh, euh, yàgg na préparé bis je pense que ni bu demee ba jël combat bi parce que xam na ni il est capable tey de relever le défi. mais li koy mm-hmm. xaar du set. waaw du koy xaar du set. waaw li koy xaar du seen mais na na jàpp nii rek le favori moom mooy hmm. Bébé Diène waaw mooy favori moom mooy Bébé Diène mooy favori waaye favori waaw favori Bébé Diène hmm. moo gën a nekk xale moo gën a compétitif donc kële outsider la booy xam ne dafay ñëw am lu muy wut si te li muy wut si moom moo koy wane. Hmm. moom moo koy wane mooy ci fulla gi ci fayda bi ak ci entraînement bi li nga xam ne tey moom la war a indi. moom mm-hmm. bis ni ki tey moom xaw ma kan waaye moom war naa bàyyee bàyyee nelaw te xam ni teel a yeewu teel a entraîné di noppale ko di entraîné fi mu toll nii def warul def mm-hmm. parce que quatre mois bëri na bëriwul mm-hmm. ça passe très vite le temps passe très très très te bis bu la ci romb rek ñàkk ko mais coach am na waaw. coach am ama neex ñaata mois la war a contact pour am li mu bëgg. quatre mois moo des ci combat bi da nga yokk sa doole mais ñaata mois la war a pour am li mu bëgg pour mën a jàmmaarloo ak adversaire bu nga xamante ni bu bëree même pas. ama neex ama neex tey bu doon may moom. dafay def euh, un mois et demi un mois et demi la fay def li ci des mu ñëw mottalee ko Sénégal deux mois et demi yu saf sàpp Sénégal. Euh. te deux mois et demi yooyu bu ñëwee Sénégal. waaw ça veut dire que ni nag dafay lelu. Euh. entraînement noppali ko bu ko deful. bu jour ji bu ñëwoon li mu bëgg li mu bëggoon du ko am. Euh. waaw bu ko bëggee du parce que changement de changement de climat bi changement de température changement d' environnement bi boo ñëwee. bu fekkee dangay ngay ñëw doo liggéey doo noppaleku ak surtout ma Dakar ci température bi ñu jëm boo deful ndànk nag da ngay feebar te moo mm. tax nag bu jëlul ay disposition teel a ñëw pour mën a teel a adapté wu ci ci climat bi et puis nekk ci ci ci ci jéeri gi liggéey mën naa compliqué ci moom mm-hmm. waaw mën naa compliqué parce que fi jamono jëm toll nii li ko bébé jéen rawee dafa bari mm-hmm. waaw xam nga nag euh, champion xam nga mm. champion ndeysaan bu mu ci mënti doon. Euh. ngay nekk champion ci bopp yow da ngay yaakaar ne la nga mënoon démb barki démb moo fi nekk ba tey. mais sauf euh. tey la nga daan def ñaar. pare da def ñeent pour pare. waaw parce que lu mu bon bon yaakaar naa ne a neex war naa toll ci ay trente cinq ans wala jëm kaw. su ma juumul. xaw maa yaakaar lu bon bon. ama neex warul amay trente cinq ans yooyu. ah si. voilà donc tey. la mu daan bu njëkk la mu daan def ñaar di pare il faut mu def ñeent bi pour mën a pare ci combat bi mu jëm. waaw bu fekkee jëlul combat bi pour daanu. coach Barra xam nga tey ma ni xam nga tey mën nga jël combat parce que da nga bëgg dellu si ci làmb yi rek dellu si waat làmb mais bu fekkee. nga jël làmb ji tey pour ñëw am loo wane je pense que ni loolu Zarko doy na ci exemple waaw da ngay liggéey bu liggéey bu tàng jër nag ko et je le souhaite parce que ama neex mbër la boo xamante ni tey wax dëgg yàlla bu pare waa làmbam day neex Lamine déggatuma la de waaw maa ngi lay dégg waaw waaw. mën naa dama gis am na mu commenté moom laay wër nii pour dugal ko. man ni ko daal li nga xamante ne mais ñi def demande bi foog ñu foog kenn génn pour mu mën a dugal ama neex. waaw parce que euh, bu fekkente ni daal am a neex li ñuy xaar ci moom def na ko waaw comme moom ak bébé Diène dana neex lool ba àgg ci lool sax. mon